Bienvenue sur Salam Vision. Salam. borom émission borom émission nii fi naar bi tax na ba fi toll nii mënatul a tourné émission bi fi toll nii tëdd nii di xaar boy ñoom waan kese deux cent deux cent yi dajale ko dem yóbbu jox ko naar bi naar bi di nax boy rek looloo ma jaaxal léegi fi ne bu la nga mën a wax tey ji téléspectateurs ne wax dëgg yàlla xam ne woon la ci fàqat waaye tey ji gis nañ nga yor sa place yaa ngi wane ni daal y'a pas de sot métier nit moom góor dafa war a ñemee lu métti waaw moom fi ñu demee rek ndax xamoo nit góor bi góor yàlla bi boobu nga war a yor a yor benn nit mais fàkkat damay ñëwaat dal ci kaw gaay nii nii nii nii nii nii damay ñëwaat dal ci kaw gaay li ngay def gaay bi damay xaar koor jàll hmm. ma tàmbali seeti mbir yi def hmm. neex kan ngay njëkk a jël fi mu ne nii waaw am na booy yu may waxal booy yu bëgg nga jël benn punkal fi mu bëgg punkal damay laal Ama Baldé loolu laay jël joxal joxal internet yi dig daje ba kañ lay doon. dig daje incha bu ñu waree jàmm rendez-vous Ama Baldé ak émission Faka jaajëf Bienvenue sur Salam Vision.